ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare mbooleem mbokki kilifa yëpp yu nekk ci biir daara ji di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci sunu darsu ñaar fukkeel ak juróom ñetteel ci téere boobu di muxtasar cheikhul xalil di ñaan suñ boroom mu dimbale ñu ci te ñu war a tàmbalee ci faslun lii ab dog la dog bii daf ci leeral lu aju ci julli ci sarti laabug dindi sobe bu fekkee daf laa war ak laabug jàppu wala sangu wala tiim waxaale fi itam lu aju ci atay bori mooy nit ki julli ba mu yàgg mu bari dikkal ko yu demee noonu kon faslun fi bayaani chartayni min shuruti sixati salaati wa huma wa huma tahaaratu alxadasi walxabasi wa ma yunaasibu assaani min axkaami ruxaaf wa shurutuha salaasatu aqsaamin shurutu wujubin faqat wa shurutu sixatin faqat wa shurutu wujubi wa sixatin mahan fa shurutul wujubi faqat isnaani albuluuxu wa adamul ikrah wa sururu sixatiha faqat xamsatun altahaarataani walistiqbaalu wa satru alxawrati walislaam wa surutuhuma maxan sittatun albuluux buluuxu dacwati walxaqlu wa duxulu lwaxti wa wujubu taxuur wa wujubu wa adami nawmi wal xaflati wa adamul xaydi wa nifaas kon yooyu ma jàng ci saraa bi noonu daf ko tudd noonu ngir wane ne jëmmi laab dafa am ñetti xaaj am charte yoo mooy tax mu war maanaam julli dañ koy def ci ay sartam ñetti xaaj jarti sart yi nga xam ne mooy tax julli ga war ak sart yi nga xam ne mooy tax julli ga wér ak charte yi nga xam ne day boole war ak wér charte yi nga xam ne mooy tax julli ga war kese moom na def ñaar te mooy al waxa wa adamul ikrah ñu kàllafe ak kenn ñàkk ko forcé ñu ko forcé ne ko bul julli su boobaa julli ga di ko war waaye sart yi nga xam ne mooy tax julli ga wér nag mu def koo def juróom te mooy ñaari laab yi muy taxaaratul xadas ak xabas ak jublu xibla ak suturaal awra ak dugg ci lislaam sart yi nga xam ne nag mooy tax julli ga wér ba pare war mu def ko juróom benn te mooy mu jot wooteeg yonent bi ànd ak xel ak waxtu julli wa jot ak amuk laab ak itam ñàkk nelaw ak ñàkk fàtte ak ñàkk ame dereti mbërëk wala dereti wasin mu tàmbale ci surita sarteef na li salaati ñeel julli tahaaratul xadasi laabu xadas wa xabasin ak laabu xabas ne dañuy sarte ci ki nga xam ne dafa bëgg a julli balaa moo julli mu ame laabug xades ak xabas laabug xadas mooy bu la jàpp nga jàpp bu sangu farata ware itam nga sangu bu fekkee sa farata mooy tiim nga tiim kon xadas moo xam toj mu ndaw la te muy jàppoog yooyu moo xam toj mu mag la kooku faaw waajib la mënta ñàkk xam ne nit ki bu ko amee woon war koo def defu ko ba fàtte ko ba julli ba pare itam du tey julli ko moom du baax da koy baamuwaat donte julli naafila la wala julli janaasa julli néew wala sax su joodu alxuraan yooyu yëpp doo ko sañu def te fekkut nga am ak laab laa bu ko xabas nag mooy jëmmi sobe bu la sobe taqee fam la taq nga dindi ko bu dee ci sa yére la wala béréb ba ngay jullee wala ci sa yaram nga dindi ko te dindee ko ndox mu mel ni ma ñuy jàppoo xam ne boo doon julli ba ci digg ba sax so sobe daanu ci sa kaw su boobaa loolu dafa yàq julli ji bu fekkee sobe su tooy la wala sobe su wow ba pare ci sa kaw su boobaa loolu dafa yàqu julli gi kon fi nit ki tàmbalee ba fa muy jeexale daal na ko soobee bañ a taq ci biir julli gi xabas wattandiku sobe bam koo taq ci julli gi wa in raxafa ndem bori na xablaha ci njëkk julli gi wa daamata sax mam bori axara kon mu yeexe julli ga li axiril ixtiyaar yi ba ci mujjug waxtu wa wasalla te mu julli nee bu fekkee danga nga am am mbori moo xam ne daf laa dikkal mbori mooy deret ji nga xam ne dafay génn ci sa bakkan rek te fekk duggagoo ci biir julli gi waaye da nga yaakaar ne mbor mi kat bala waxtu julliwee jeex su boobaa dana fi jeex kon su boobaa doo sañu julli fa sansé faaw da ngay yéexe julli gi neggandiku ba ca mujjug moxtaar ma bu jeexee baax na nga julli bu fekkee ne jeexut su boobaa nga daal di doora julli balaa waxtu waa raw kon boo mboree njëkk ngay julli te jàpp ne mbori mi dana fi jeex bala waxtu waa jeex kon su boobaa mën ngaa daal di doo julli da ngay daal di néggandiku ba ca mujjug muxtaar ma bu jeexee nga julli bu jeexul itam nga door a gaaw julli balaa waxtu waa jeex aw fiiha wala ca biir julli ga wa an wa in xiidan ak doonte jullik xiid la aw janaazatan wala doonte jullik tàdd néew wa zanna tamu njortu dawaa muxoo saxuk mbarima laxoo ba ca mujj waxtu wa atam maxaa kon mu mottali ko bu fekkee nag mbari mi daf laa dikkal ci biir julli gi xam ne da ngaa julli mbari mi daal lay dikkal te bii moom danga nga jàpp ne da nga njortu wala nga xam bu wér wala nga sikk sàkk ci ne mbaru mi moom dafay sax ak yow ba ca mujj waxtu wa maanaam balaa waxtu fii waxtu wi jeex daal mbaru mi du fi jeex te fekk nga dugg nga ci biir julli gi kon su boobaa da ngay daal di continuer julli ga rek ndax jekk di ko dagg du ci am njariñ ginnaaw mbori nga ci biir julli gi ta mbori mi li nga jàpp mooy ba waxtu yu jeex du fi jeex kon su dangay daal di mottali julli gi bu fekkoon julli xeet la ñu ne julli korite ak itam su boobaa du aajowoo nga di ko dagg ginnaaw mbori nga te jàpp nga ne mbori moom balaa du fi jeex fii ak julli xeet gi di jeex wala bu dee julli néew la du fi jeex feeg jullig néew gi di jeex kon su boobaa da daal di mottali julli gi rek du aajowoo nga di ko dagg kon lee mun a njëkk a wax mooy kimbori njëkk muy dugg ci julli gi te njortu ne balaa waxtu wee jeex mbori mi dina fi jeex ñu digal ko mu néggandiku ba ca mujj waxtu waxtaan bu jeexee mu julli bu jeexul mooy kii mbori ci biir julli gi te lim njort mooy mbori mi kat du fi jeex feeg waxtu wi jeex su boobaa dañ koy digal rek mu mottali julli gi mhm. bu fekkoon nag jàpp na ne feeg waxtu wi jeex mboro mi dina fi jeex dana la ko wax ci kanam in lam yulatiq ndeem nammuta taqal farsha masjidin yu jàkka waaw mbori mii kat mu la wax ne la ginnaaw jàpp nga ne fii waxtu wi di jeex moom mbari mi du fi jeex kon dangay ngay mottali julli gi bala ngaa sañ mottali julli kat mooy mu wóor na ne boo mottalee julli gi sax bari moom du taqal laytaay yi jàkka yi bu fekkee jàkka ji dañ ciy def ay laytaay su boobaa nag doo sañ a mottali foofu ci biir jàkka ji di taqal jàkka ji kon far sa masjid mu wax bu fekkoon ne jàkka ji dafa am leneen luñ ci lal loo xam ne nekkut ay laytaay mel ni dafa nekk ay xeer wala mu nekk ay karo nga xam ne yooyu moom des na ko mën a raxas kon su boobaa moom doo dagg da ngay daal di continuer mhm. kon boo ragalee ne boo continuer rek da nga takkal jàkka ji kon su boobaa danga ngay daal di gaaw dagg génn bu fekkee bu waxtu wi xawee yaatu la nga dem raxasi ko bu waxtu waxatee itam nga génn gaaw julli ca bitti jàkka ji wa aw ma sañ naa junju sañ wala sujjoot ba léeg-léeg sax junju ga nekk lu war li xaw fi taadihi ngir ragal ak loroom aw tala saw bihi wala taqal ay yéeréem laa jasadihi waxuma nag yaramam nee bu fekkee da ragal ne sa mbori mi boo sëggee di rukkoo wala nga sëgg di sujjoot su boobaa mën na laa gand indi la lor kon su boobaa da ngay daal di junju sa rukkoo yi di junju itam sa sujjoot yi bu fekkee rukkoo baa boo koy junj ci taxawaay bi nga koy junje bu sujud ba boo koy junj da ngay dem toog ba pare door ka junj junj googu nag bu fekkee ne danga ragal rek ne ragal ju woyof ne boo rukkooyee da am lor ju woyof woyof kon su boobaa koy sopp bu fekkee nag jàpp nga ne boo rukkooyee wala nga sujjoot da nga ci am ngaañ lu méttee métti kon su boobaa war ci yow nga junj naka noonu itam bu fekkee jàpp nga ne boo rukkooyee wala nga sujjoot dangay taqal sa yére te boo taqalee yére ñaare raxas ko man naa jafe ci am na yére yoo xam ne bu taqee deret raxas ko du tax mu baax man naa yàqu kon su moom da ngay junju ngir sàmm alal ji waaye bu fekkoon ne yére yi bu taqee deret itam boo ko raxasee du wàññi dara du yàq yére yi kon su doo junju da ngay daal di rukoo da ngay daal di sujjoot itam laa jasadihi waxuma yaramam mooy bu fekkee sa yaram rek nga ragal nag mu taq kon su boobaa doo junju ndax yaram moom manes na koo raxas raxas du yàq aw yaram wa in lam yazun na ndeem njortut ndeem njortut saxuk mbori mi feel nga waxoon wazanna dawaamuhu fii nag wa in lam yazunna ndéem njortut saxu mboromi warasha te muy ceeb mboromi di toq di ceeb ndànk-ndànk kon fatalahoo mu beram ko bi anamili yushrahu ci kóoli baaraami loxol càmmoñam waaw bu fekkee dafa mboromi danga njort fii ak waxtu di jeex moom dana fi jeex waaw dangaa jort ni fii waxtu di jeex mbore mi moom dana jeex wala nga xam ko bu wóor daal jàpp nga ne daal balaa waxtu wee jeex moom mbore mi dana jeex te mbore mi dafay ceeb maanaam nekkut loo xam ne dafay toq bu baree bari wala muy yol kon su boobaa nee na da koy baram say baaraam ni nga koy baramee ci say baaraam nag mooy da ngay jël sa baaraamu day bi nga dugal ko ci sa bakkan boo ko dugalee ci sa bakkan boo génnee sa yenti baaraam yi mooy baaraamu sànnikaay ak baaraamu digg ak baaraamu ndombul ak baaraamu sangaleñ koolu baaraam ba ca kaw ñu baaraamu sànnikaay ba ci ngay njëkk a taqal la nga njëkk a génne boo dugalaatee nga taqal baaraamu diggutu ba boo dugalaatee taqal kóolu baaraamu baaraamu ndombur ba ca kaw boo dugalaatee taqal kóolu baaraamu sangaleñ ba ca kaw bu defee boo dugalaatee sa loxo nag ci kóolu baaraam yi digg bi ngay ñëw maanaam ci baaraam yi kóolu baaraam yi nekk ci digg bi ki ngay ñëw te njëkkee baaraamu sànnikaay ba teg ca baaraamu diggutu ba teg ca baaraamu ndombul ba teg ca baaraamu sangaleñ ba nga takk foofu nag ne li nga taqal ci kóoli baaraam bi nga xam ne moo nekk ci kaw su ëppee ab dërëm tam dees nañ ko jégal waaye li nga taxal ci kóoru baaraami diggu bi moom su ëppee ab dërëm rek su boobaa nga war a dagg julli ndax fii nga toll bul fàtte ne mooy bërëb bi nga xam ne dangaa njort ne mbori mi dana jeex njëkk waxtu wi di jeex moo tax mu ne fa in zaada ndem ëpp na xan dirhamin walis ab dërëm xataxa kon mu dagg julli gi la nga ci sa baaraami daal bu ëpp ab dërëm kon su boobaa ci kóoli baaraam bi ci digg bi diggitu yi kon su boobaa bu ëppee ab dërëm nee na nga dagg julli gi ka an la taxaxoo ni ku bu ko taqaloon waaw ki mbari mi bu fekkee dafa am lu taq ci sa yére la taq ci sa yére itam bu demee ba ëpp dërëm dërëm mu baax la mooy lañ la mayoon ci mu taq la ci dërëm nga julliwaale ko su boobaa itam kon nga war a dagg julli gi aw xasiya wala mu ragal talawuza masjidin riixuk ak jàkka riix baatu wolof la mooy taqal jàkka ji rek bu fekkee wóor ne sa mboro mi dafay seeb waaye nag boo continuer mboro mi dana taqal jàkka ji kon su boobaa itam da ngay daal di dagg ndax bu fàtte ne yaa ngi toll ci fi nga xam ne danga njort ne mbari mi kat balaa waxtu we jeex dana fi jeex mhm. wa illaa bu fekkee ne mbor mi ceebut warasa ji la waxoon wa in lam yazunna warasa la ca tegoon te muy ceeb wa illaa bu fekkee ne ceebut nag nga xam ne mbor mi dafay toq toq gu am doole wala muy sotti wala sax dafay ceeb wala waaye day ceeb ceeb goo xam ne gu am doole la nga xam ne nekkut neexut a baram comme noonu ñu la ko waxee noonu nga xam ne boo yeexul rek lay génn dana gaaw ëpp ab la wala dana génn ba ëpp doole taqal jàkk ji demee noonu kon su boobaa fa laxoo kon ñel na ko alxaton dagg julli gi dagg koo xam ne da koy bàyyi lamu defoon sànni la mu amoon bu ñëwee tàmbaliwaat armalaat armal bu yees waaye wala xoo ñel na ko atama di fiiha loolu amul ci yax bi waaye am na ci chara bi ci sara bi ci lay am kon bu ko neexee daal mu dagg julli gi daggu bàyyi ko bu neexee itam mu dagg julli gi daggu bu ñëwee sosale ca la a am nga xam ne du ko bàyyi day dem raxasi mboro mi bu ñëwee daal di sosale lam jotoon a julli daal di cay continuer mu ne wànnu di ba soppeef na nag jokk ga nee eh, albina u jokk moom lañu gën a sopp boo xoolee jumhooru mazhab bi ci ngiru malik ñu bare bari loolu lañu gën a wax moo tax mu ne wan nu di ba albinaaw xinda jumhuri asxaabi imam malik radiallahu anhu lil xamali waxtaara ibnu xaasim alqatu li anna sa'na salaati ittisaalu xamaliha wa adamu taxalluliha bi soxlin wa siraafin an mahalliha qaala zarruux wa huwa awlaa bi man laa yuxsinu tasarrufa bil xilmi ku mel ni ibnul xaasim moom moom day wax ne moom dagg daal moom moo ko gënal ndax mbiri julli nee na dafay mbir yoo xam ne dañ ko war a toftale war koo sosale te bu fekkee dafa dagg dem di raxasi mbari mi julli gi dootul sasaloo no war a moo tax moom ibnu xaasim dagg gi moom la taamu ku mel ni zarruux moom daa wax ne dagg googu de bu fekkee koo xam ne amul xam-xam bu wér ba mën a soppaxndiku ci xam-xam lay gën mooy mu dagg koo xam ne amul xam-xam bu wér ba a soppaxndiku ci xam-xamam la gën rek mooy mu dagg waaye mel na ni tey waxi ibnu xaasim jooju nekkut ne moom lañu sukkandikoo li jumhooru mazhab bi wax rek te mooy albinau muy euh, jokk gabañ a dagg moom lañu sukkandikoo mhm. wa mawduul xilaafi in tasaxal waxtu wa illa wajaba albinaahu ittifaaxan fa ñuy wuutee nag ndax dagg ga ak jokk ga lan moo ci gën mooy bu fekkee ne waxtu wa dafa yaatu waaye bu fekkee waxtu yu daa moom kon day war nga jokk bañ a dagg loolu moom maase nañ ci fa yaxruju dana génn moom si ka an fii ngir mu may aj jàpp bakkanam lil xas li ngir raxas ga bu fekkee danga tànn ne loolu ñu sopp te mooy jokk gi bañ a dagg bañ a sànni la nga amoon ci julli gi kon su boobaa da génn jàpp sa bakkan daal di dem raxasi deret ji boo génnee nag raxas kese kese kese moom nga yittewoo bul def leneen lu bokkut ak raxas bu ci sart yi dajee rek su boobaa boo dikkee da mën a jokk mu wax la sart yi in lam yu jaawis ndeem jéggiwut aqraba makaanin gën ngaa jege bërëb mumkin guy aji jàppandi xaruba tamu jege boole ci lay tax boo ñëwee mën a jokk mooy ba ngay raxasi mboro mi jéggiwoo bërëb boo xam ne moo gën a jege boo xam ne mënoon nga ko faa raxase bu fekkee da ngaa jéggi bërëb boo xam ne jege na te mënoon nga ko faa raxase daal di koy jéggi dem feneen rek su boobaa kon julli gi dafay yàqu ndax da ngay mel ni da yokk ci julli gi te tey ko su boobaa kon doo ko mën a jokkate bu fekkoon nag dangaa jéggi bërëb boo xamante ni moo gën a jege waaye la tax nga jéggi ko danga ko faa mënta raxasi nekkul sa coobare kon su boobaa moom du yàq julli gi baatu xaruba gee mu wax nag ab lu am solo la mooy bërëb bi dafay nekk bërëb boo xam ne mooy gën a jege ci nga raxasi ca mbër mi ba pare day jege waaw ndax bërëb mën naa gën a jege ba pare te du jege bu fekkee bërëb ba nga xam ne moom nga raxase mborom mi daa jegewul daa soli rek kon su boobaa doo mën a jokkate kon xaruba ji am na ci solo lool mooy bërëb ba dafay jege boole ci donte jéggi beneen bërëb boo xam ne moo gën a jege ci nga raxase ca mborom ma waaye bërëb moom na jege mhm. moo tax mu ne wa ashaara bi xawlihi xaruba ila annahu يشترط مع الأقربية بالنسبة لمكان آخر قربه في نفسه فإذا بعد لو كان معه أقربية بالنسبة لمكان آخر فإنه يدور ولذا احتاج المصنف إلى قوله خرب بعد قوله إن لم يجاوز أقرب مكان fa in ba'uda al makaanu alladi xasala fihi dam batalat as-salaatu walaw lam walaw lam yujaawis makaanan xarib mumkin al-xuslu fihi wa yastadbir li feeg wanut ginnaaw xiblatan xibla bilaa xusrin ci lu ngànt beneen sart ngoog sart bay tax nga mën a jokk mooy ba nga demee di raxasi deret ji wanoo ginnaaw xibla bu fekkee da wan ginnaaw xibla ci kaw yaa ko tey su boobaa dootoo mën a jokkati bu fekkee ne ngant moo ko waral nga xam ne ba ngay jug di raxas dara gi daal ñàkk wan ginnaaw xibla kon su boobaa nag moom da nga mën a jokk kon boo wanee ginnaaw xibla te ngànt waral ko su boobaa da nga mën a jokk bu fekkee na yaa ko tey wëlbati ko wan ginnaaw xibla def noo xam ne da nga wan ginnaaw xibla moom su boobaa kon dootoo mën a jokkati wayta ali feeg dëggut najji san sobe beneen sart ngoog bala ngaa sañu jokk fa ngay raxasee daraja nga bañ fa dëgg sobe mhm. bu fekkee danga fa dëgg sobe te tay nga xam ne mënoon ngaa dëgg feneen kon su boobaa julli googu dafay daal di yàqu bu fekkee ne danga ko dëgg ci kaw fàtte wala yaa ko tey sax waaye mënoonu dëgg feneen fu muy ci sobe kon su boobaa julli googu du yàqu danga nga mën a jog ko waaye boo xoolee sara bi nee na euh, boobu muy def ci dëggu sobe tay ko ñàkk ko tey euh, ak teqale mu ci def nee na fi xeyril xasirati wa naxwiha xayta wa ama alxasiratu wa naxwiha fa yubtulu watuha min xeyri tafsilin in kaana ratbatan ratbatan ñu ne bu fekkee dafa dëgg sobe nag soo xam ne ay xayta la kon su boobaa dafay dal di yàq bu fekkee sobe su tooy la mel ni ay xayta xayta yu tooy bu ko dëggee nee na kon dafay yàq bu fekkee nag dafa nekk sobe soo xam ne su wow la bu fekkee sobe su wow la mu dëgg ko ci kaw tay ko kon su boobaa lay yàqu waaye bu fekkee da koo fàtte wala mu loru ci kon su boobaa du yàqu teqale boobu mu def nag ci sobe su wow seg sobe su toos yi du ñëpp ak li feeg waxut walaw saxwan ak doonte njuumte la waaw nee na lay tax itam mu mën a jokk mooy ba mu génnee di rax ci sobe sa ba baa muy dellu siwaat mu bañ faa wax dara waaw su waxee rek donte wax daga njuumte moo ko waral kon su boobaa julli googu dafay daal di yàqu wa in kaanata fekk mu nekk bi jamaaxatin ci mbooloo lay tax mu mën a jokk itam mooy fekk julli googu nekkoon julli mbooloo benn moom mu nekkoon imam wala mu nekk maamum nekkoon imam maamam mhm. bu fekkee kenn ku doon julli woote nañ ci ndax dana sañ jokko wala du sañ a jokko dana ko wax ci kanam wastaxlafa wuutal na al imaamu ilimaan ba waaw imaam bu fekkee ne moo doon jiite ba mu yàgg mbari moomu dikkal ko kon su boobaa dafay dal di wuutal keneen mu ñëw foofu waaye wutal googu dañoo wax ne day junju ibnu Habib day wax ne day war ci imam bi mu junju buy wutal bu fekkee dafa wutal bu waxee rek moo xam moo ko tey moo xam ak umpale moo tax mu wax ci bi wutal kon su boobaa moom imam bi julleem dafay yàqu waaye ma moom itam seen julli dafay yàqu bu fekkee bi wax nag umpale waralu ko ak tay waralu ko njuumte rek moom moo ko waral kon su boobaa moom imaam bi nee na julleem dafa yàqu waaye ñoom maa moom yi seen julli du yàqu boo xoolee majmuu nag la ci nekk ñu jële ci ibnu xaasim mooy bu fekkee imam bi dafa wuutal ci kaw wax donte moo ko tay sax kon su boobaa julleg maam moom ya du yàqu moom imam bi rek moom mooy yàqule ku mel ni alxataab moom day wax ne loolu mooy mazhab bi nga xam ne loolu daal mel na ni kon moom la sukkandikoo Baxi ibnu Xaasim jooju bu fekkee imam bi dafa wuutal ci kaw wax donte ak tay sax du tee julleem moom rek mooy yàqu waaye maam moom seen julli duñ yàqu bu fekkee imam bi dafa dem te wuutalut kon su boobaa bu fekkee ci julli ajuma day war ci ñoom maam moom ñu wuutal keneen ndax julli ajuma mu ne su benn benn bu fekkee rek moom imam bi wutalut bu dee ci julli ajuma day war ñu wutal bu fekkee ci julli gu bokkut ak ajuma nag moom kon su boobaa ñu sopp ci ñoom rek ñu wutal keneen waaye buñ julli woon benn benn itam du dee dana baax mhm. wa fii il fas di nekk na ci jokku kenn xilaafun yaari wax yu siiw maanaam wuute ndax kenn kuy julli rek dana saña jokk wala du sañu jokk kooku am na wuute mhm. am na ñu ne sañ na ko am ñu ne déedéet kenn koy julli rek du ko sañ jokk gi moom ki koy sañ mooy kii nekkoon maamoom wala mu doonoon ilimaan mhm. ndax ñoom dañuy jàpp ne xëy na dañuy bëgg mu am li nga xam ne moom mooy ngëneelal jullit mbooloo ñeneen ñi nga xam ne dañuy jàpp ne kenn dana sañ a jokk dañuy bañ rek mu dagg jëfi julli gi mooy lim jotoon a julli mu bañ koo dagg noonu dagg julli gi kon daal loolu wuute la ci ndax kenn sañ naa jokk wala sañ ci jokk wa isa banaa ndem jokk na lam yaxtadda du limaale illa bi rakaatin dara ci ab rakk kamulat ba mat na bu fekkee dangay ngay jokk doo limaale lu mooy rakk boo xam ne dafa matoon sëkk ànd ak yaari sujjoot ya defe naa borom risaala waxoon na ko borom aqrabul masalik sax moom waxoon na ko moom itam daa mel nit bu fekkee dafay jokk raka boo xam ne ànd na ko iliman ba mat sëkk mu defoon ñaari sujjóot ya kon su boobaa boobu lay saña limaale waaye bépp raka boo xam ne matutoon defoon ñaari sujjóot ya su boobaa raka boobu du ca saña jokk mhm. kon mbokk yi xam naa mën nañoo taxaw noonu incha allah ba dellu defee ñu continuer dañuy bañ mu gën a gudd lu fi jub xam ne suñu borom la lu fi dëng itam ngeen jéggal ñu ko te jubanti ñu ko wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh